alors gis-gis bu njëkk bi président de la république euh, ci sénégalais yi des Wuhan foofu la euh, euh, jàngoroy coronavirus bi wàlle feeñ mu ne nous n'avons pas les de rattra rapatrier treize sénégalais yi yi des foofu càng fa gis-gis Abdourahmane Sow waaw di leen masawu hmm. di solidaire di reconnaître c'est une vérité malheureuse hmm. cela témoigne et dénote d'une mauvaise politique sanitaire de ce pays. Mm. depuis dix neuf cent soixante ba léegi buñ tolloo fi ak milliards yi ñu fiy ñu nekk dans ces situations je suis très solidaire au président de la République mais je suis très désolé. Mm-hmm. parce que alors ñuy nuyu au passage président sénégalais yooyu nekk foofu sànq rek jokkoon nañ téléphone wax na ak moom euh, Mbacké Mbacké Amar Diop ñàkkul ba dinañ dikkaat ci ni mu gën a yaatoo ci cas bu Pape Djibril déclaration président. sur les treize. di masawu seen i waajur d'ailleurs gis naa conférence de presse bi ñu def am na ci ko xam sax dafa jooy. Mm. xam nga yóbbu sa doom mu tukki ci réew mii pour mu dem jàngi lu ne di nga ko daj pour mu dem. Mm-hmm. nga am yaakaar ci moom. mu nga am léegi ta seule certitude rek. face à cette situation mooy sa incertitude ci moom mm. c'est-à-dire que feebar bi taxaw na euh, je pense que ne man li ma gën a yitteel tey mooy d'abord ñaanal leen suñu borom mm-hmm. musal leen ci mm-hmm. mais encore une fois les autorités yi ci war a wax aussi nañ jël seen responsabilité ñu am ci taxawaay bu am mat sëkk parce que mm-hmm. tant que situation amul aussi mm-hmm. tant que situation amul euh, bu situation amee rek ci mm-hmm. ki nga ko seqal ci ngay ci nga koy mën a natt nag ale ngom ñaa waaw wax li ngeen li Pape Djibril wax ak sama naataango bi mooy ñaawlu vraiment situation bi nga xam ne moom la ñu nekk. Mm. mais jàpp naa ne président ku am yërmande la te lépp lu mu mën pour def ko dina ko def pour indi sénégalais yooyu. Mm. en parlant de moyens je pense que ku mun di déplacer ay équipe nationale di financer ay yeneen ak yeneen indi 17 sénégalais au moins. Mm. du problème donc le problème bi président di wax est un problème plus profond. boo xam ne dañ ci war dem. Euh, maturité parce que am na ay dëkk yuy gaawantu di yóbbu mm-hmm. mais bu ñu yuuxoogum tàccu jàpp ne ñoo ñu gën a jàmbaare mm-hmm. nañu seetaan xool ndax musiba mun na fa am mm-hmm. nañu ànd ak prudence wóolu ñi ñu nekkal te jàpp ne kenn gënu la nekk père de famille ki nga xam ne moom lañ. dégg li dal italien yi nga nga ngay ragal. italien yi dama xam rek président waxee si angle bi. Hmm. mais bu doon loolu la. ñeme na dama dégg fi nga waxee rek. j'ai compris <laughs> Italie am nañ premier cas déclaré parmi les rapatriés ci yàlla musal vraiment sànq yàlla musal. birima wii. non c'est maa ngi d'abord. Mhm. li muy njëkkee mooy maa ngi ñaan ci kàttanu yonent bi salaatu wa salaam. Mm. Sénégal yi nekk foofu. Mm. yàlla na yàlla musal ci barke Serigne Touba ma yaakaar. ngi ñaan yàlla na yàlla musal ñu mucc ci problème bi. Mm. der ku ne moon na situation boobu. Mm-hmm. situation bu complexe la. Mm-hmm. xam nga ñu war a yaakaar ne affaire bi jël avion la dem jël treize indi. ak sori loolu sax. maa ngi lire dem France 24 Cameroun trois cent ressources am ci ville boobu. Wuhan. Wuhan trois cent waaw. mais même réponse que réponse Sénégal moom la moom foofu lañ toll. Mm. donc c'est très compliqué. Mm. balaa la bu dal ci ci doomu aadama yi metti quand même lu mënoo ci wax lu bari ndax nit mun na ci jafe-jafe doom na si àll mu tiit jaxasoo nga naan ko lii moo war a nekk lii li am solo rek mooy nañu ñaan yàlla ñoom ñu mucc. ñu ñu ne ci réew mi mucc. oui parce que ñoom ñu bañ a ñëw taxul ñu ba ñu mucc. Hmm. mais ñu ñu ci réew mi dañu mucc ñoom yàlla muccal leen ne en tout cas c' est complexe. Hmm. très complexe vraiment ndéem réew yu am doole boo seetloo Chine dem ba xoolee Chine ni ñuy ni ñuy ni ñuy xeexee feebar bi. Hmm. ay drone. ñuy pompe man ni lii de bis bu ñuy Afrique mooy dañuy jël Afrique jox yeneen réew ñëw dëkk mais at amuñu moyens yooyu. on a parlé moyens xeex xeex tamit loolu Chine di ko xeex bi de noonu la def feebar bi. Mm. aucun pays africain amul moyens yooyu. Mm. alors Papis. waaw c'est que masawu déjà. Mm. di daal déjà peuple chinois bi si boppam di daal waa Chine du suñu souhait et tout mais man bëggoon naa daal ñu gën a relativiser la la la chose quoi parce que déjà su ma jëlee l'exemple de mon ami pour kay euh, Cameroun Cameroun moom du. je pense pas que le, le Cameroun soit une référence à tout point de vue en termes d'économie de politique mais de tout quoi avec le Sénégal je je dis ça parce que c'est ma conviction Cameroun mënu sax organiser Coupe d'Afrique donc ñaanuñu yàlla sax tollu ak ak Cameroun benn mooy moi j'aurais souhaité xëy na forme de communication bi parce que nit bu nekkee si njàqare euh, instance suprême bi ki gën a fort ci dëkk bi ne mënuñu euh, amuñu moyens yooyu mm-hmm. day andi njàqatal si ñi fa euh, na fa na fa nekk parce que ça aurait été mhm. mu ne amuñu doole certes waaye suñu kem kattan dañ ko def pour andi suñu ñetti doom suñu fukki doom ak ñett et je que treize personnes c'est pas très compliqué Abdoulaye mhm. waxi président dafa gàtt trop en mhm. mënoon na gën a gudd parce que loolu mooy indi ñu jàpp ni amul gën a gudd li no non ci non ci situation bi muy waxee. Mm. ci ni amuñu moyen wu indi leen. Mm. wax bi dafa gàtt. Mm. parce que kenn waxul ba léegi biri Birima ne nañ leen indi bàyyi leen ñu dox doxi no bu leen di indi aussi condition yi sécuriser la. isoler mettre en quarantaine mm-hmm. nangam nangam. comme mm-hmm. pays yeneen yi ñaareel bi mooy jàpp ma ne ñun suñu diggante ak yenn pays bu mel ni ki France. jàpp ma ne ñun xaritoo bi ñuy bàkk suñu diggante ak France que ñu ñuy dix-huitième parce que dama gis avion France décollé avec dix-sept nationalités à bord xanaa loolu sax lu mën a nekk la. Hmm. waxtaan ak réew yi nga xam ne ñu ngi exfiltré France dafa jël ay nitam yóbbu leen Paris ndax Paris la muy réew amul dispositif bi. Hmm. Marseille lañ leen yóbbu foo xam ne nii presque. c'est prévu pour ça. Mm-hmm. li solution aussi mooy ñun suñu xaritu ak yeneen réew muy Canada muy yeneen. fexe ni ñu li jël parce que am na yeneen réew yu koy def. donc loolu aussi mooy njariñ li fu sa doom nekk nga fexe taxawu ko moo tax ma ne wax ji dafa gàtt mënoon naa xaw a gën a gudd ci defal aussi famille yi parce que famille yi déggin biñ ci am. Mm-hmm. bi ma déggee baay ji wax ni eh, yaay ji kenn ci xale yi ne daf mel ni fetal bu ñu ko ne tuy bi mu déggee président wax nga xam ne loolu wax ji defalu ko te mm-hmm. c'est dommage que mu waxee noonu te li garaaw nag mooy. Mhm. dans la chaîne de décision parce que mhm. c'était une communication préparée mhm. président mu ngi ko waxee ci cérémonie levée des couleurs yore ay këyit lu mu préparé la loolu mun mënuñu comprendre ci chaîne de décision ñi koy xelal ci communication yëpp bàyyi ko mu waxee ni mu waxee loolu du yoon booba. mais am na français su waat ba léegi pour topp information. y a des français yu fa des ba léegi. waaw dama ne. je les ai suivis hmm. ah, mais yéen a dama la wax ne y a des français yu fa nekk ba tey am na français yu choisir des fa. non non non si si am na français yoo xam ne ñoo choisir des fa parce que gis-gis la. bon garaawul ah, gis-gis la ah, on passe très rapidement. la fa nekk ci français ëpp na. waaw mais cinq mille. gis-gis gis-gis waaw man man daale man man déjà avant may avant may commencer mooy. Euh, pour inviter nit ñi aussi que ñu am tuuti solidarité ak le peuple chinois xam nga ñun ñuy nekk tout le temps ki suñuy wax ki suñuy remarque dafa dem ba nga xam ne à la am na su bëri yoo xam ne c'est même de la comédie ça veut dire euh, nit bi bu nekkee ci coono yu mel noonu même bu ñu nee Chine la ñu nekk ci suñuy waxin ak su ñuy defin ñu solidaire ak ñoom c'est important parce que. Euh, mbir yu mel nii mën na nekk lu ne mën na jóge fu ne junj doy na borom xel euh, Chine dafa nekk ci benn lancé bu am solo donc yii yëpp mën na nekk ay mbir yoo xam ne sax ñun tuuti nañ ci maîtriser ko. mais ci peuple aussi bu sa moroomu nit nekkee ci coono da ngay am benn taxawaay boo war a taxawaay ngay dégg gars yi di waxtaan finalement c'est devenu même benn affaire boo xam ne dafay dafay convoquer leneen ko pour ñu xaw ci bàyyi xel beneen bi mooy. wax dëgg yàlla ñun ñëpp sénégalais lañu. Euh, sénégalais bi nga xam ne moom moo jiitu ci sénégalais mooy président Macky Sall je ne pense pas que lii daw si ñun mu bañ a daw si moom mooy yërmaande boobu ñu nekk ay sénégalais ñun ñëpp. donc maintenant euh, li ab lay wax c'est très important communication dafa am solo te dalal xelu nag nit yi ak defal leen dafa am solo en attendant de régler ce problème boo xam ne parce que France. influence bi mu am ci Chine wala États-Unis am ko wala Allemagne wala Canada am ko ci Chine ba mën a wàcc foofu jël fa seen ay ay ay ay ay truc peut-être que ñun amuñu doole parce que à la fin de la journée réew mu amul doole li États-Unis mën ñun mënuñu ko te loolu il faut ñu intégrer ko mm-hmm. d'accord ko ñu bañ a convoquer un peu émotion bi et bañ ko jël mu nekk euh, un problème entre président Macky Sall ak famille yi wala ak sénégalais yi c'est un problème mondial boo xam ne ñëpp dañ ci war a benn approche pour man. boo xam dafa am solo. der dëgg day metti te te ñëpp koy metti loolu la nga ci gis bi ci topp Charles gën a sës ñëpp bi ci bi ci topp waaw hmm? mais li mu wax c'est plein de sens alors euh, beneen bi ci topp euh, ñii liggéeykat yoo xam ne la ñi ngi xëy Medis Pharma euh, fii ci Sénégal moo doon SIPOA ay jamono dañ leen def ñoom ñëpp ah, SIPOA garab la ñuy defar waaw te ñoom am na garab yu bëri yu ñu fiy jëfandikoo filialu kii nag bu bu mag bi Tunisie la nekk mais ñu ngi liggéey fii trois 300 emplois yoo xam ni dañ leen euh, ne nañu toggandi te ñoom it nee nañ ma garab yu bëri ñoom ñoo koy liggéey yoo xam ni épileptique yi dañ koy jëfandikoo ñuy def crise épilepsie jigéen ñu wérul ñi ñi ñuy woowee fii jigéen ñu wéyu ñu ëmb ak euh, liir yi. donc muy doublement la ñu nar a am problème 300 emplois yu ñu tuur ci mbedd mi waaye it ay garab yu nar a manqué ci l'observateur lañ ko jàngee te ñoom it li mënoon na nekk te mu jàkkaarloo bëggoon nañ ñëw mais bon comme ñaari thème la rek xaju ci woon Charles. ki mooy le, le rendez-vous raté de la pharmacopée de la biologie le rendez-vous raté de avec Cheikh Anta Diop Mm. je pense que mooy usine bu mujj bu doon liggéey fii garab euh, ci Sénégal su ma juumul ci li ma jàng ngom euh, ngom ñaa waaw ab usine bu tëj moom kenn mënu ko rafetlu parce que du signe bu baax si ab état mm. mais comme xamuma li waral mu war a tëj ba mën emploi mën menacé parce que commande bi mu ngi fi nit ñaa ngi gën a bëri donc nit ñaa ngi feebar également lan moo waral mu war a tëj donc awma les éléments donc mais ñaawlu le fait que parce que toute entreprise mhm. qui ferme quand même du point de vue même fiscalité donc ay perte la pour l'État du Sénégal Abdourahmane oui j'ai la même position je ne maîtrise pas le sujet mhm. mais je leur témoigne toute ma solidarité mhm. façon no leen autorités yi jàppale leen ci mën pour saafara ko rek ñu def ko incha allah Abdoulaye Cissé président de la wax na ñaari yoon. ci conseil des ministres yu tegloo. instruire ministre de la santé pour ñu gaaw baral taxawal industrie pharmaceutique. waaw vraiment loolu lu ñu bëral la ci conseil des ministre deux fois de suite instruire ministre de la santé pour ñu taxawal. industrie pharmaceutique fii ci biir réew mi est-ce que dina solutionner lii mais comme du euh, solution wu dans l'immédiat leneen la mais mën na doon solution à long terme mmh. maintenant deuxièmement bu dee ci côté emploi yi la am na loo xam ne dalul xel ci situation wu réew mi trois 300 nga wax fii am na 200 au CDE yoo xam ne nañ leen ñu toog te secteur la boo xamante ni nii tey fragile na fragile boo xamante ni nii entreprise yu mag yi amuñu liggéey ak nit ñi ak particulier commande publique la ñuy liggéeyee foofu sooxee na ba tey am nay jafe-jafe CDE la tey xamuñu ban lay doon ëllëg loolu moo jar a tiit. Hmm. mais ñi nekk ci giraawaale gi bien entendu ku ko nattee sa bopp rek di nga leen masaw te di nga am njàqare. Pape Djibril. Birima. waaw Sénégal moom wax dëgg yàlla dafa jot aujourd'hui ñu toogal les centrales syndicales rek le problème travail yi entreprise tëj dafa bari. Hmm. et c'est très dangereux. Hmm. vraiment mënuñu di jooy emploi ñu tëj entreprise. c'est si te malheureusement doo dee kenn ku wax. entité dafa commencé bari ci réew mi moi je suis la politique. non doon. moi je suis pas d'accord. non non du politique c'est plutôt syndicalisme. waaw ah, <laughs> pour man question bi ñu war a poser mooy pourquoi entreprise yi di tëj. loolu ah. moo loolu moo moo ëpp am solo parce que bu ko jëlee rek ci syndicalistes yi nañ jóg wax pourquoi entreprise yi di tëj. Hmm. parce que xaw ma CDE ah. mais ci li ñu xam ni parce que bëri na ay doomu Sénégal yoo xam ne seen nga nekk na fa au delà de liggéey bi ñu fa liggéey sax. Mm-hmm. ci li ñu xam perception bi ñu am am na ci bëri yoo xam ne c'est une c'est une grande famille. donc je pense que la question qu'on doit se poser mooy dans un comme comme le le Sénégal nan la mun 300 personnes quand même c'est beaucoup c'est 3000 parce que ñooñu ñëpp ay pères de famille lañu donc mais la grande question mooy que pourquoi entreprise yooyu. par exemple CDE di di wàññi deux cent personnes c' est une grande grande question Pharma aussi allez Papis. Ah, ci <clears throat> sama xam-xam bu ndaw bu gàtt yéen dëkk yi de dëkk yu développé yom hmm. doole par exemple bu seen ay emploi ay entreprise di sooxe. Hmm. gouvernement mooy ñëw jàppale leen. Hmm. pour ñu taxawaat. gis-gis bi si topp bu mujj bi. alors gis-gis bu bu mujj bi ñu ngi dem ci euh, impacté terre ñu ngi ko doon wax sànq mooy euh, train express régional bi. terre bi bëri na coow am na ñoo xam ni nag euh, collectif buy dox suba doxu ñaxtu 52 quartiers ak mbaaw nee na mur guñ leen tabaxal goo xam ni la dafa mel ni dañ leen a dañ leen a beddi waaye am na tamit yeneen yu ñuy jooytu nguur gi nee nañ du du du engagement yi mu jël yëpp la wàccook moom bokk na problème mu relogement déjà même ñi ma euh, collectif bi bokkul ak collectif national ñooñu it nee nañ état bi wàccoowul ak. Euh, xam naa ni terre bi daal dinañ ko defaat sujet dellu si ci vrai problème yaa doon wax sànq terre yow laay dooree Abdourahmane waaw ça me permet de dire que ni man dafa am loo xam ne dama ko gëm. Hmm. ab réew. Hmm. président bi koy jiite ñi mu àndal lépp luñ fa def. Hmm. pour mu jëm kanam dañ ciy d'accord. conditions yi la ñuy contester. oui transparence ou pas maintenant. il a des impacts sociaux. environnementaux dans tout projet il a des études qui devraient faites avant. yii di am ba nga xam ne lii yëpp mënoon nañ ko vraiment moytu man foofu laa leen interpellé que ni population yi dañ nekk dans de situation de précarité ak yenn condition de vie yu impossible mhm. maintenant bu ñu demee ba vraiment yii yëpp di leen dal foog naa balaa ñuy defar lii euh, euh, en tout cas infrastructure bi ñu mën a xool yooyu yëpp. oui lañ koy mën a gérer. waaw APIX daal xam naa ni mënul ñàkk ñu dellu si waat fii Charles foog foog ñu ñëwaat alors Ngom Niang. li terre bi moom ñëpp xam nañ ne mesure de sécurité moo ëpp si li côté. Hmm. parce que courant bu bëri moo koy dawal. te même bu liggéey bi pare il faut ñu wax ak askan bi. parce que hmm. ñi dëkke boor boobu yëpp ay grilles ñoo fa newoon te dañ ko doon tëb. kuy tëb gri du bàyyi miir donc tey état bi wax dëgg président buggoon na yëpp yi teel a daw mais coow toppatuñ ñoom préfère vraiment ñu coow ci ay retard que di coow si ay doomu aadama yu ñëwee vraiment je pense que c'est ça euh, Charles waaw foo am projet matériel mu am projet social bu ko ale hmm. allez Ablaye ñu koy nax yenn projet yi dafa bëri te duñ ko wax dëgg xam nga courant bi dafa diis vingt cinq mille volts moo ko waxal boppam parce que loolu ko technicien yi mais ñu yokk ko wax ko ni passerelle yi trois cent mètres yu ne. président moo ko wax 31 décembre. Mhm. mu ne lii waa Caaroy doon kaas jaru ko parce que mhm. trois cent mètres yu ne am na passerelle bu ko ko technicien yi waxee ba mu wax ko mhm. ñooñu vraiment trompé nañu président parce que ñii nga xam ne nii jàpp nañ ni mur bi tëj na leen amuñu fu ñu jaar bu ñu ko nee trois cent mètres yu ne passerelle la nga fa ça veut dire que doo dox cent cinquante mètres de part et te loolu c'est pas mooy indi problème yi ñooñu ba ñu xëy wër passe wër passerelle gisuñu ko moo indi li yëpp. Pape Djibril. c'est vrai. oui. man encore une fois euh, ñi population yi mu dal seen kaw laay laay wax rek day revenir ci li ñu doon wax ci get Ndar c'est-à-dire que la banlieue la la grande banlieue honnêtement ku leen yërëmul doo leen teg beneen coono. tal nañ lu neen nag. Hmm. li ma wax ci waa get Ndar léegi ne tal nañ leneen lu dul xëy di sànni ay xeer ak ay policiers. waaye ñii tamit tal nañ leneen lu marche hmm. su ñu amoon li ñu soxla nañu marche lii nag man ay di gis nga fi mu ne nii pour man lu yëngu rek et c'est dangereux c'est-à-dire ku yëngatu ci sa secteur doo bëggee togg ku dul président. mais c'est extraordinaire hmm. le président délègue à des gens yoo xamante nii daf leen di jox jox ay mission bu bu dee ñooñu dañu télé aussi hmm. mais franchement ça pose problème Birima waaw man li ma d'accord ba dañu war a yokk passerelle bi quand que nag aussi Euh, nit man man neex li ñu defaree passerelle même gis naa sa ay passerelle yu def ci tën yi bu dee noonu la def baaxul ba des fois dafay sori non dafay sori kaw dafay da ngay tourner tourner ci mag aussi c'est tellement dur que yaay pousse nit ki mu dem jaar fu ko mën a ma man je pense que les passerelles pourquoi Sénégal mënuñu def par exemple comme ni ñuy def euh, euh, kii bi nu ma la waxee bi ñu continuer loolu. Mm. au lieu ngay yëg te moo yëg. oui ñu jaar suuf. nit c'est pas les Dakarois waaw même waaw dama xam nga nit aussi nit. yow yaa koy jógee fële a bu ngeen doon tracé Dakar. Charles ne perturbe pas. s'il te plaît waaw ñu wax suñu paysan et villageois. voilà loolu bëgg ñëw tracé Dakar. Eh. waaw yéen booy donc. Euh, kii di booy ñaay cooke. moi je pense que maam yi beleer la. boo seetloo même ci dëkk tuwaay bi ñu koy am na ay ay tunnel. ay na donc il faut ñuy aussi ñuy xool ni bu ñu defati travaux yu mel noonu au lieu ñu ñu ñu jël li gën a nekk def ko jox ko nit mais li gën a yomb la yoon jox nit kii mhm. par exemple route bi jaar ci kaw ah, train euh, raay mën na jaar ci kaw tu me comprends maintenant fii farta mën a jaar benn ama ñu benn ñu bàyyi nit ñi ci suuf ñu bàyyi nit ci suuf ok tu me comprends maintenant dafa am ñaari ñaari ñaari ñaari aspect au-delà de impact bi désagrément yi. Ah. il la problématique du relogement. mais même bien sûr loolu du aspect bi ñu. waaw waaw les gens s'arrêtent sur juste impact bi mais aussi c'est fondamental maanaam on va vers un autre bien sûr. booba waaw man en fait lu ma si wax mooy xam nga da ngay dégg TER. Euh, man man suñu dëkk yi jaaxal nañ parce que da am projet boo xam ne à la limite dafa nar a changer la en tout cas seen quotidien benn deux minutes nga ci am. na euh, nu mu tudd ki fi ñëwoon mun si waa si tagaa si waaw ñu invité ko fenn mu wax ci benn débat c'est-à-dire que lii bu naree ñëw bis bu ne dañ ñu intégré si ñun comment ça va fonctionner il faut communiquer projet bi lu muy déjà ci mbirum transparence bi ñu doon wax day tax nit ñi gën a imprégné wu nit ñi gën ko adapté approprié wu dëkk bu ndaw mi am projet mu bu ëpp mille milliards tey jii normalement ñun ñii fi toog ñëpp koo ci laajoon novembre la fi ñëwoon wax c'est pas important bu manqué deux mois six mois un an c'est pas le plus important mais le plus important ñun ñi te xaw nañu mbind bind suñ tur pour ne pas dire que ay jàngkat yu rëy lañ waroon nañu mën a ne TER bi bu ñëwee temps lay coûter fii lay bu taxawee fii taxaw fii fii laa war a dem toxu ji nit ñi fii lañ koy jëlee lii lay impacté dara mais rien du benn lañ fi am ci campagne électorale président de la république dugg na ci mu kat waaw mu dugg dem ñëw boo amee projet bu mel nii état aussi dafa war a di communiquer mhm. mbir mi ñun ñoo ko moom walla ñoo koy fay tous les jours télé yaa ngi fi internet mi ngi fi rajo baa ngi fi lépp mi ngi fi nit ñi dañu war a xam projet yu mag yi lan lay impacter seen life pas que rek dañu leen war reloger wala benn mur Sénégal man mii war naa mën a xam terre bi lan la may indil. te loolu du doo bàyyi ba jour inauguration bi nga def benn direct def nii mu jeex il faut communiquer avec les populations eh terre bi dañ ko war a xam ci langue yépp hmm. am na koo xam ne mën nga dëkk Thiès hmm. mun na xool terre bi ne damay re relocaliser wu dem fii fa nii parce que lii la may indi lak na li hmm. noonu la projet di changer laay fu nit mais teg rek naan milliards milliards milliards tey gi ñu inauguré te nit ñi préparé wuñu leen du sotti ak BRT xaw ma nu mu tudd BRT la woy voilà étranger. voilà yooyu laay wax nii nañ bàyyi turu nasaraan yooyu ñuy indil non mu romb ñu nii rek. Mm-hmm. du ñu xam lan la mu jël ay mille milliards te te fekk non dëgg la il faut que ñu wax ak nit ñi. allez euh, vraiment merci beaucoup.